avec nous alors euh, dañuy jàll directement ci nga xamante ni ñooy def euh, buzz ci internet euh, fi mu toll on parle beaucoup de Facebook Pape Cheikh avant de commencer insolite ak buzz yi dañuy wax ci Facebook parce que ma mère elle m'a envoyé un message ne ma dafa am ku ko signaler que damay envoyer nit yi ay euh, di poster seen mur ay euh, image à caractère pornographique en fait j'étais même pas au courant et je pense que ñu ci bëri euh, gis nañ seen benn xarit envoyer leen image yoo xam ne xalaatuñu woon hmm. nit ki dina leen ko envoyer juste pour vous dire que du nit kooku moo leen ko envoyer parfois Facebook sa compte dañ ko pirater am solution parce que tamit dafa yàq sa der nit yi foog ne yow yaay posté genre vidéo yooyu euh, solution bi mooy da ngay dem euh, si sa page Facebook ci euh, la c'est am droite ci extrémité bi am na benn flèche bu fa nekk soo cliquer ci flèche bi wàcc ci suuf dañ lay am na ci suuf dañ lay wax signaler un problème donc boo cliquer foofu mun nga dem ci contenu abusif soo demee biir contenu abusif dañ lay wax nga copier lien wu euh, li ñu posté ci pa yu jàmboo yi nga poste leen ko pour ñu gis que ni euh, contenu boobu nga bëgg a signaler donc ñoom après dinañ ko supprimer et sa xarit yu bëri tamit mun nañ def même signalisation bi bu ko defee wa Facebook supprimer ko parce que du nit yi ñoo koy envoyé c'est des pirates qui font ça. voilà et c'est très dangereux. voilà c'est très dangereux très gênant aussi. Mmh. on continue de parler de Facebook ñoo ko defar benn page la Pape Samba bu fekkee mun nañ gis photo bi boo xamante ne ñu ngi ko tuddee You Challenge comment sa se passe da ngay woy benn woyu Youssou Ndour et puis nga lancé challenge comme Ice Bucket challenge bi ñu doon def sa yeneen xarit ñu woy woyu Youssou Ndour posté aussi y a des sons yoo xam ne am na ñu neex baat woy nañ ko bu baax mais am na ñoo xam ne maa ngi ñoo mayam mais c'est c'est un effet boo xam ne c'est fédérateur des rassemblés fans Youssou Ndour yi donc bu fekkee ci ngeen bokk mun ngeen dem aimer page boobu Facebook euh, xool challenge yi def challenge seen ay yeneen xarit yi nga xamante ne même passion bi la ñuy partage ak yéen. mooy challenge bi def naa leen a lancé challenge bi sax kon de di nga dégg loo musul baal ñu ko rek ko rek baal ñu ko rek ko rek baal <laughs> doo def bu baax non yow moom instant bi ñun ñi fi toog yow yaa war a gën a jege. bu dama leen di révéler benn affaire. loola nga wax kenn xamu ko. acca wax yaa daa xaw a yuusu. en fait c'est par parce que je veux pas mu éclipser ko. Mm-hmm. moo tax woyoo moo tax woyu ma mais maa ko dàq way. je te lance le challenge. da nga koy bañ a nëbb suul ko da nga koy suul. ndeysaan waaw léegi benn way oh. challenge. non non mais sérieux je suis yaa daa xaw a yuufu léegi wuy ma léegi wuy à na bàyyi rek ñu xool. non non non non mais dafa sama xoolal. wala intro intro rek. non ma ne dina am na fu muy toll benn jour yàggatul ah. ba ma génne sama single bu njëkk bi. cëm si ngeen di gëm xam nga léegi boo defee nit ñi dañuy wax rek boo génnee télé nit ñaa ngi wax <laughs> boo bu demee ci émission yi nit ñaa ngi wax. soo waxee journal nit ñaa ngi wax gis nga bés boo fi wooyee du ñu yam ci waxi dañuy ñëw dóor si la buuba lu leer laa la wax moytu sénégalais dañu lay dóor si ah xanaa ma jéem a ut fu ma ko nëbb dañu lay door si ah seen xol di on ak lan mooy def buzz actuellement sur internet Kanye West Pape Cheikh ci Grammy Awards yi amoon lundi 9 février dernier Kanye euh, on se rappelle en 2009 dañu jëloon benn euh, trophée meilleure vidéo jox ko Taylor Swift mu yéeg ne da koy nangu joxe ko bien si. am nañu vidéo wu li mu defaat ci Grammy bi. dafa defaat leneen defati na de. I need some help. Come back. <laughs> oh my God. I need some help. Yeah, réaction Jason. Oh my God. c'est-à-dire dañ doon xaxataay parce que defoon na ko ci euh, bi ñu doon jox Taylor Swift yaa kim ñëpp a ngi reetaan ci public bi parce que chanteur bi ñu jox euh, meilleur album de l'année Beck la tudd. dafa rëbalat moom dafa yéeg ne kat mooy Beck en fait dafa naroon yéeg wax mais nee na dafa xalaat famille moom ak marque de vêtement bi mu bi mu créé. <laughs> Uh-huh. moo tax waxaatul ci affaire yi mais nee na il faut que waa grand mi arrêté di foo ak ñoom parce que ñoom dañuy liggéey foowuñu lu <laughs> ñu toog liggéey seen album Beyoncé album moom moo ngi cartonné actuellement. ci ñu gën jaay la bokk. ñu jël euh, euh, première album bi nga xamante ne dañ doon wax entre Beyoncé et Sharon bi nga xam ne temps yëpp ñu ngi koy déglu euh, ñoom ñoo ko waroon gagné ñu ñëw jox ko Beck nee na kan mooy Beck Beck <laughs> personnellement kenn xam faa man maa ngi c'est ça parce que Kanye euh, aussi il faut benn moment qu'il arrête que c'est pas à lui de déterminer kan moo aaye kan moo aaye. chaque jour danaan nañ ko jox. bien est prétentieux quoi. kii et par exemple daf ko répondre benn réponse bu respectueux ne ko euh, on ne peut plaire à tout le monde. j'aime encore Kanye je crois que c'est un génie j'aspire à faire ce qu'il moom dafa bëgg kenn wees daf ko respecté daf ko respecté ba pare <laughs> foog na ni dina def li muy li mu li mu li mu war a def mais Kanye West nee na bu ñu bëggee vrai artistes yi di ñëw Grammy Awards di ko di di ko fekkee di ci mhm. di ci assister di participer il faut ñu arrêter mhm. manque de respect bi ñu nekkee ak ñoom alors que comme buuba li mu wax très grand artiste. voilà merci voilà. voilà moom mooy def buzz actuellement internet lundi lañ ko posté déjà 800000 vues sur internet. voilà mais man vidéo bi Prince moo ma ci rey. allez man.